Moussa Ndoye Zoss Zoss a ngay dëkk Moussa Ndoye mais est-ce que lii combat la Moussa Ndoye Zoss oh. sant yàlla waxal. mais gis bu mu nekk. duruma nekk état. mais Zoss ngay jël wala keneen ak keneen. non Zoss laa pare pour bëre moom. Eh, eh, ah. non loolu dama koy close. waaw dama koy close dafa am lu tax ku bëgg am lu tax. non fekk suma kër libre naa nag pour suba. parce que ginnaaw suba damay delluwaat ñëw ma fi pour toog lii rek moo fi doon. incha allah ku ñëw baax na du ma wax kenn ñëw. à de 11h laa jóg yeewu su ma yeewoo ku ñëw baax na maa ngi yaraax mais di wax ni pare naa pour dama entretien naa ñëw naa xam naa li ma nekk toll naa nu ma musul toll mel naa nu musul mel yàlla dénk na ma kattan gu ma musul am kon sant yàlla mais sa rak dafa am muy caatu yara mu war a bëre ak mbër boo xamante ni sa génération la tey est boo demee sori ko conseil yi nga ko war a jox du ko yàqal dara ci combat février dina fekk dafa am lu may mottali ji rek ñëwaat dama doon nekk ci liggéey dafa am lu may mottali ji rek ñëwaat le 12 février fi la may fekk la indiwaat di ñaan yàlla caatu yarax yàlla may ndam di ñaan yàlla wu jàmbaar yàlla na ko yàlla may ndam waaw loolu kese la amul may waxam rek eh, kii day soob dañ ma ko jox kii xoola marak la dama ci kii day soob rek dara nekku moom dañ ma ko jox Moussa Ndoye dañ ma ko jox waaw dañ ma ko man maa ko bu doole xoola lii bi mu ne nii dara pastam ah. ma ko jox la day nappee. ay Moussa Ndoye moom may war di ma tëkk. ah fu ne mu may tëkk xool ko. mu dama ñëw njaam rek mu ñëw tëkk. xoolal lii sooy day fay ne sooy nooy nooy neex la moo tax ñuy viré di ñëw si man mais loolu du yoon dinaa leen woon ban may kan. mais état bi